Kédougou la ñuy risqué def Saint-Louis ak feneen ak feneen tant que amuñu fulla ak fayda ci tubaab yii tubaab yi tant que ñun sénégalais du ñu taxaw won tubaab ne ko hey jàllal na le wallahi dinañ am jafe-jafe. ngor li fi xaw metti na tar na jafe na mais la promiscuité ngor almadi am na apparence buy feeñ mooy voilà vous voyez almadi euh, certaines autorités qui habitent voilà c'est bien beau soi-disant en passant. almadi boobu nga xam ne ban kese la euh, structuration assainissement zéro mais bu ngeen duggee biir ngor ngor ngor dëgg dugg biir gétt ndaar ak fa ca des toutes ces populations là mais léeg-léeg gars yi dañuy préférer bàyyi leen noonu pour mën a xëy bis nag nangu seen ay terre voilà le danger loolu mooy danger wu ñàkk moo tax nu ne bu ñu àndee ci synergie gox bu nekk defal boppam bànkam chaque jour famille bu nekk joxe cent franc ca nañu toll wala deux cent wala trois cent wala cinq cent selon quartier bu nekk ak possibilité yi nit ñi am waa kër gu nekk daan na ñun mën nañu joxe deux cent wala cent ki kii ñu ne ok na kër gu nekk joxe deux cent mun leen cinq cent deux cent ngeen mën na ku ne joxe deux ñu dajale bu paree dana jur dara ñu lijjantiku une loi interdisant l'obtention de terres sénégalaises par des étrangers wallahi azim loolu moo la dëgg Sonko sunu jërëjëf mais qui doit le faire l'État du Sénégal Indien yi lu ñu fi amul ci suuf chinois yi lu ñu fi amul turquie yi français yi Auchan tey dafa am ay tool boppam yoo xam ne ay dit a koy gérer yolaa ñu ne la ay sénégalais ñu fekk en fait dans le fond c'est kii li dal Sénégal moo metti te njiit yu am pas-pas yu gëm réew mi yoo xam ne du ñu xool seen bopp rek du ñu complexe ñoo ko mën lijjanti li tax nag génération sénégalaise bi ñu ci ëpp ànd ak Ousmane Sonko c'est parce que en tout cas dans l'apparence et le propos en tout cas selon ce qu'il dit parce que yàllaa xam li xew suba selon ce qu'il dit nit ñi am nañu yaakaar boobu ci moom parce que au moins un temps soit peu il a eu le courage en tant qu'opposant de dire écoute la France basta ce que les autres n'ont pas fait Kisma Dramé eh, eh, connecté woo nga sur YouTube jërëjëf wala nga partagé e même temps jërëjëf yal yàlla fay SNF1 TV. Est-ce qu'on doit accepter les propos de Macky sur RFI et sur France 24 euh, Choisir Amadou qui lui remplace, machin. Non, ki kilifa bi benn affaire fi am sénégalais ñooy tànn léegi nag ñun sénégalais yi nañu observer nañu xool nekkatul folli tànn la léegi nañu xool rek ak pas-pas. koo xam ni di de dix ans yàlla wala douze ans yàlla mu ngi lay dóor di la sànni xeer di la gaañ di la def lu bon ah wax dëgg yàlla yaa mën a di sa bopp nag yaay taxaw woon ko nekkoon nag léegi sa ay jeex na c'est tout c'est tout compliqué wul. il se passe énormément de chose oui qui sa décident pas chez nous effectivement Jacques Mendy jërëjëf le mal est profond le mal est profond. Le candidat est kidnappé, hélas. Il n'est pas kidnappé, il est entre les mains de Dieu. Et Dieu est le Tout-Puissant. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est Tout-Puissant. <laughs> ku yaakaar ni téye nga nit sax dangay nax sa bopp parce que yow mi ko téye amaana ki nga téye moo lay gën a gudd fan yàlla nañu yàlla may fan wu gudd wér donkaasi gi ak jaboot ko barkeel fekkeek tal barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa na loo xam ni euh, peut-être bu nu bu nu bu nu bu nu <clears throat> yàlla ñu yàlla dolli sutura Daouda Lebu maa ngi laa ziar Boissy LK Boissy Mami Sarr mu ngi lay nuyu waa Cap Skirring Loulous <laughs> Jacques Mendy Kouma Ndiaye euh, maa ngi nuyu ñëpp surtout Atou Mami Sarr Cap Skirring Missy Diame jërëjëf Oui, oui. Euh... <laughs> from Norway. Gambian. Nabu, maa ngi laa ziar si bu baax Juste une question, pas méchant. Pourquoi Khalil Je pensais que c'était une insulte. Non, non, <laughs> <laughs> non, non. non, non, non, non. non, non, non, non, du, du saaga de. Et du abdagal de. Du kutaaba itam. Khalil, alors, écoute-moi avec attention. C'est l'ébou. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme quand le Wolof dit Déglouma. Dégloul, aou, eh, Le lébou, il dit Khalil, aou. prête-moi oreille avec attention loolu laa loolu laa signifié c'est pas une injure non Ndeye nu ngi laa ziar bijou qualité garantie ce pays est devenu une catastrophe waaye yàlla mën nañu suturaal nu defar ko nañ ko defar nañ ko defar nañ ko mën nañu ko defar nañu ko defar François Xavier Borelli jërëjëf Desmet Diop Oumar Tall Euh, Alioune Badara Debbo jërëjëf Lulus jërëjëf Famata en tout cas bu nu àndee daal defe naa ci dëgg yàlla na mën nañu mën nañu dimbali euh, Karim Karim li Seydi li maa ngi laa ziar kilifa bi euh, maa ngi laa ziar bu baax bonjour monsieur Seck je vous suis de temps en temps et j'espère j'espère comprendre. Je veux comprendre, peut-être vous le dire. Si vous êtes chroniqueur, journaliste ou bien partisan, militant du PASTEF, j'essaie juste de comprendre. jërëjëf Seydi Ly yàlla yàlla fay je suis d'abord sénégalais donc dama am carte de vote damay voter ça veut dire que j'ai le droit de choisir qui je veux ça c'est un avant quoi que ce soit d'abord donc bi ci topp je suis un professionnel de l'information je suis à 24 ans d'expérience J'ai été formé à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. J'ai eu une bonne base avec le groupe Sudcom, la RTS et tant d'autres. J'ai eu la baraka par Allah subhanahu wa d'avoir fait la presse écrite d'abord. Il faut savoir écrire pour être un bon journaliste. La écrite au groupe comme ça, de 2000 à maintenant, j'écris. Vous voyez, Monsieur Lee, Anima Deglo. Donc, je suis un professionnel depuis 24 ans. on va dire parce que diggante 99 à maintenant c'est 24 ans la première fois que j'ai parlé à la radio c'est sur Dakar FM la le premier à m'avoir donné le micro c'est Michael Souma donc pour vous préciser que je ne suis pas un, un, un chroniqueur humblement je vous parle ainsi pour que nga gën a am plus d'informations je suis journaliste j'ai fait la presse écrite la audio télé et la toile donc aujourd'hui je parle en tant que Sénégalais journaliste sénégalais voyez un peu pour que mu leer ci sa bopp partisan du peuple oui maintenant ce bracelet que je mets en main c'est parce que dafa am ci peuple bi ñenn ñuy doxal loo xam ne du dëgg du yoon maanaam jaay nit doole ci jaay nit doole boobu ma ne man mënuma xeex mais mun naa takk lii pour dire je ne suis pas d'accord je pense que c'est moins violent hmm? n'est-ce pas ñu ngi laa ziar bu baax Karim Ly Seydi Ly et merci pour la question vraiment jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydi Ly yàlla na yàlla yokk la sàmm la dolli la sutura yow sa njaboot yëpp kattanal leen barke alxuraan barke salaatu fatiha barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous on cherche à avoir la bonne conscience la conscience tranquille sunu ay xarit yu bëri monsieur Ly je vous parle sunu ay xarit yu bëri ñu ngi nekk. ñu ngi nekk biir APR benn bokk yaakaar man ma rakkab baay ma rakkab baay sama papa ku ko sës rëkk rakkam xaritu Ismaïla Madior Fall la ñoo bokk APR seen APR c'est un grand urbaniste Léon maa ngi laa nuyu sama baay boobu c'est la même famille moi j'ai ma position lui il a sa position tout comme ñeneen ak ñeneen dans la famille waaw mais aujourd'hui nous ne sommes pas des animaux pour ne pas nous respecter wala na bañ a nangulante mais dëgg fa mu nekk nag wax dëgg yàlla dañu kaa wax le président Macky Sall a échoué politiquement parce que lam ñu waxoon ak lam ñu diggoon doxu ci tey nu souffrons le martyre avec 14 000 milliards de dettes qu'il va nous laisser qu'on va devoir payer heureusement qu'on a le pétrole et le gaz ci kàttanu yàlla si on s'organise bien et et quoi encore beaucoup d'énormités et de difficultés des centaines de Sénégalais qu'on a perdus morts ou morte ci ayam ak leneen ak leneen ay sénégalais yu ñu jàkkaar loolu téye pistolet tiré leen si cela ne fait aucun effet à quelqu'un qui habite le Sénégal moo dina kooku yëg-yëgam wala compréhension des na li lii tax ñuy wax monsieur Ly donc ça dépasse le cadre journalistique c'est le Sénégalais qui parle nous des êtres humains ay nit lañu